thank you mbaɗigol mbakkon ɗon no dawoda mba falale ko biyo ken fele sere kuna marse kono sere kuna kede dulade miya lon ko wafirola karola ni sandirola karola ka kede dulade miya ka bisi bake ni ba jele bahade madi wala kundun kundun jele molla tani na ba siarin a bide nada sere kuna ka mul nyininga sun karola kenya la wafiro ba nyaadi le marse kono sandiro ba nyaadi le presul ba nyaadi le za mul nyininga bar jadin ka diamo sendi mba na sida nyola nga mul nyininga alfa mo samu dala isa isa fale marse kono ba nyaadi le sandiro ka kenya de sun karo ba wa diamo ka siani sun karo kono sida mul safo ko sandiro ko ba firla ke le bagazul dala fale dolbi je safo ko ko aka kole ala puka fengol dosoro so bar jandi wo nsiranga mol nyini ngal fongo sa moy sa ko mani ko sa fanya chakoro ga dia wulol fongo da kono fo kunol fongo da kono sal fongo sidali moy e fongo min jeje sungoro kono ibrahima jama gamen talent tv ala baraka ba assalamu alaikum mbokk nguñ fen sudut ci marché sere ku najis ngi nañ duga ka genna bi nit yaangi bari ñun nag ñu ngi fi ñii di laajte nit yi wàllum price yi ak loo xam ne tam walum or bi yow loo fa mun a wax dal ak loo fi mun te gis man Lamin Balde assalamu aleykum assalamu aleykum musidɓe an fulɓe musidɓe an julɓe hande meɗe wonani on ɗo sérékunda marché marché mo anduɗon gambiya ala mo anda ko honto woni sérékunda piiji ɗin fof ko ɗo watta ilugo e yeeyo coñci ñamete téléphone kala ko mijitiɗa a heɓay ɗum sérékunda marché hande noon jokkodire yahe nder daron ko honɗum yimɓe ɓen yii o suumaye e o marse ko yaari ka price ji kam marsuman e ko darande marsuman je ko min haysatou dialo assalamu aleykum broda nanga def sant yàlla wér julli ci yonent bi kërëm sama ñaari waajur tur bi ibrahima diop ibrahima mbaa yaa ngi or tey moom wóoruma dama feebar ah da feebar ah ibrahima tey yow def si marché bi jaay yàpp da jaay ah, noo gisee jaay bi ah si weeru koor bi ak lu dul weeru koor bi jaay bu dul weeru koor bi yamuñu nag waaw jaay weeru koor moom moo te ne waaye yëngu maa yëngatoogul nag moom ndax xaalis moom moo bëreegul gars yi génnagul daal. waaye yéen ñii yéen mi ñuy jaay nii seen price yi naka la si weeru koor bi ak ak ak lu dul weeru koor man de la man sans place li ma doon jaay weeru moom laay jaayee tout tuuti la ñuy jaayee kilo yàpp ba léegi moom laay jaayee bif teg tout fii man ba tey yokku gu ma man. xam nga waaw xam nga ñeneen dañuy wax ne comme si weeru koor bi jaaykat yi dañoo yokk seen price yi yow su fekkee loolu mooy dëgg yow loo yow bi Wanguri. xam nga man na ne mën ne ndax yalla sax dana nas su ma bind ni way yemuñu ku ne ak ngay amé sa marchandise yàpp yi ma du dina wañeku waye man tay ji yokku mam yokkugu guma waye nagi mom na abu ko man munuma jek jek ma yokk ndax ni mon andal ay at ñom lay andal di liggey te yaakar na man amna fi jabar kon fo am jabar xam nga ne ami wut nonu te tay dépasse bo joxe fo xonde maximum fo xonde dafa bari jinde ko lu yap putin lan ngay déssé iti dalasi mëno ci ndugu ñu jappalante ñun ñëpp rek. ok Ibrahima jëf way ok yalla yalla def assalamu alaykum na ma mbi ñang Todi Malu. la Kadi. Kasam. Kadi kasam ah, ah sunkaro duma ñadi le. ah sunkaro nga commencé le. Kadi mi sunda du. ah kabirin kunun telbe ah kadi kasama wafiro ba ñaade kono. ah mbakan do man do ma firol bu nin sergilin santa jannaɓe fulanjan omo do kuwalta ayo comme wafiro Kenya, sungaro kono nada presse mul ka fo presse wafirlal keeɗa dala fa tol wafirlal ala mono soto ko foro antel caltiyel fonuga lafa fonuga nañe lafade ɓari mboka koɗo lafa walla ganna koɗo tala katu naman buli ɓuli ɓakela ñaadi fo la da tala ɗoro mol ya san ntel boka na firo fa ka fo la fa hani oɓe firla ɗol le ma na nyetiol ani atente lama fawa yo ñim baga sul sul ki la fadan ki jini ten ni abe abe siya kan sare kono itemu mu itemu kuma kana solo mi ko ni nyanda ka man salam man salam mole ba muna fole ah fo ni ali amar doronde firol da itala man so itala ya mar no marin marintel mu cal do kulalet ni ko be kuma fala wandi so to doron ye mistake ko to sa ila so ibe wol control barite wandi marsandiso control wala mun tela ko mote ah na marsandiso chalo nye koyo nsi wo kontruno bari ko bi jabo pompitero lajo dulino wol ten na kontot an to kontrunol ah wala mun tela ko ya baraka baga ya baraka tanala jantum kono makete don ko sadio diallo sadio diallo uh, ah, don hoori nde hoori e eh, inchallah ah ok ko honno suumaye on e marse on business on buyno yaade buy buy buy buy am on andi buy in nayi ah, changement on comme si suuma e ari prix yeyetenoɗo on e on joni harayno changediri onon kon ɗum makuɗon uh, e ɗum ɗon minen nde hede amen ɗo hay hunde changeaki minen fof kono mi wonno yeyrde noon ko noon hikka hay hunde changeaki tigui prix on ɓeydaali on ɗuytaali min ɓeydaali min ɗuytaali am ko honno ɓe innata ɗum ɗo how to call it hiɓe inni eh, suumaye on o yiya woɓɓe hara ka yiwɗonɓe woɓe moni spécial ka marché ji ga no fiidi woɓɓe no tutta woɓɓe no yenna kon ɗum marɗon onon koye yewtong ɗum ɗon ay fus ɗum ɗo goɗɗo ko noon goɗɗo wata ittude jikku minen ko noon mi yirata marché ga ɗum no woodi mi yiyay ɗum any 2 minutes 3 minutes ayay ɗum ɗon no waɗa yimɓe ɓen no fotta no piira no sonka no waɗa piji boyi wawi ɗum nakko wona e suuma e tum heeɓe marché marché a taway olwi oldita en no haray ɗum no woodi kono ka suuma e haray tension jini ka no ɓuuri par pasque yimɓe ɓen no ɗuuɗi ka marché yimɓe ɓen kadi no waɗi hatte yimɓe ɓen no wuuli no ko ɗum ɗon tum waɗi ɗum ɗon ko honɗum on inni onon prix on ɓeydaki hiɗon tanjini ko ɓeydi ɗo e suumaye on ka ɗo yii wako waɗi normal to no ɗum ɗo mi annda ɗum ɗon mi annda ko aroyta quoi kono menen kay marché andi menen wayna mi yeyata holset menen ko men deta mi yeyata me annda ko arata ko addoɓe bagage tu wawata ɓeydude ko kamɓe wata uytude menen me anda ko arata dal ok on jarama assalamu aleykum na na di ɗo fatou fatou bojam fatou bojam fatou bojam kori sunda biko mbe sundinne ko ite amirante mum sumbalole Ah, Fadu mo jam mbiɗum ite ite ɓuri kam no wawi marsido jam hana fof ko jayolde ron wolam computer ot a faɗo mo jam ite wafiro anin sandiro sandiro kol ite kaye kul kol ma ñadla mar kono han peng fo bata batadoro ngam fo wala bije bata batadoro ko do buka soto pengo pengo buka soto sai sunkoro kono atolo wafiro wafiro kenya sunkoro kono ani sunkoro bantali ba nyaadile fo diya doron jumala kili sonara sunkaro kono fo sunkaro bande hm? nko bada wafiro wafiro kenya kono sunkaro kono laga sonia fo sunkaro bande laga sonia aka sonia la bela ka sonia yo sate mun kuma kana sura ka fo mansa kunda ya. ali nga do ko ce doron nga do ko ce wala betiyata aba bulol bula ya baraka baga mariama mariama ok uh, ah, mariama camara ɗon hoore eyi eh, miɗen hoore honno korka kan hikka korka ka alhamdulillah miɗen hen seeɗa seeɗa on aruɗo seedugol ka o yeeyay woni eh, hande min yeeyal koto suumay so dari ke min yeeyata ko ha suumay maya min yeeya a ah, ok ko adi suumaye o yeeyo toon ka suumaye o yeeyata ko honɗum waɗi sabu ɗum ɗon ɗum ɗon so minen ko guerte tum min min sodata ɗo min yaa min safoya min min etira pooti miɗen waɗa e buus miɗen eta fay fay ok am um, joni nini nomi yi'iri on ni ka nder marché no wayi wasi on aru sodugol ko kuntare men duggata ko kuntare duggoto on haali gonga kay am um, ko honno yi'irɗon piriji ɗin ka marché adi suumaye on e ka suumayeɗo sona piriji ɗi na seeri tan ko ɗum tan men yiiɗo ah, ok no wayi waka suumaye ɗo piriji ɗin ɓeydi ke ɓuuri adi suumaye eyi kay ɓeydi suumaye kay joni kay ɓeydi ke ɓay kilo luppa ko 75 ko honɗum marɗon ko yettoɗon lanɗo on e laamu makko ngun ko yaadi e ɗi piriji seeruɗi ha joni sona walla min tun ha ɗum ɗuyto seeɗa hmm, ɗum de min faala ko faala ɗon dal ko yo wallu en no ɗuytora seeɗa eyyi eh, ko ɗum de yimɓe ɓe faala eh. on jarama awa on jarama assalamu aleykum nanga gattuɗa mana haadi jeey haadi jeey ma yeyi or tey wa ma e or yo lola andi si marché mi tey man dama de def sales sales lo loɗe jeey ma bone laa di jaay meew. Xadi Jaay marché bi naka la mel si weeru koor bi. ah marché marché bi moom kay mu ngi bonni diga diga diga diga daa ja jarte bi daa dem ah, demut normal daal. demut normal comme naka. comme xam soo demee si client yi dana dee woon ne jaay amut comme nit ñi génnu génnuñ jaay su amut moom nit ñi duñ mën a jina because of xaalis amut daal nit ñi tamit pour jaay loolu mooy problème ah ok yow noo gisee comme ni ñu price loolu naka naka nga gisee loolu noonu. ah price yi moom kay soo nee ñu ne weeru koor weeru koor weer bu mag la fon naa price yi dañ war a wàññeeku daal. waaye price yi ñoom balaa balaa weeru koor di ñëw sax price yi dañ dee wàññeeku waaye suñ déggee weeru koor dañ dee ekkati price yi yëpp xam nga loolu moom warul te soo déggee weeru koor price yi dañ war a wàññeeku. pour tiyaabo bi nga am nga am tiyaabo waaye yow nga yaa ngi jël price yi di ko éegal te niw doole te ñëpp nekkuñ ne ba ànaka dañ dañ am ñëpp amuñ yow mun ngaa jënd price boobu waaye keneen mënut a jënd price boobu noonu. waaw si yeneen saa yi mun ngaa la tey jaaykat yi ñu ne la ñu ne la du suñ ñun sa si si government bi la wala si président yi la lu yooloo am ban message nga am pour pour si président bi. ah man de maa ngi wax government bi ne ñoom ñu xa nga government tam suñ toogee noonu si naka seen seen office yi duñ mën a xam marketing bi lan moo lan mooy dox si marketing bi ba pare par rapport nekkul ne tamit ah, naka government bi ñoo dee yokka parce que ñeneen say tamit business kat yi ñoo ñoo dee yokka seen seen business yi su suñ defee loolu ñu ne government ñoo yokka fekk government tamit xamuñ si loolu dara because of business kat yi ñu mag yi ñoo dee yokka seen seen price yi ba pare yow soo naree dem foofu noonu pour jënaat parce que ñooñu ñoo sen presse lañ am dañ la wane presse nangam yo yo loolu mun nga koo jënda te xaalis boobu noonu amuloo ko mun laa mun laa féebu waaw loolu moo ngi koy dëggal. waaw jërëjëf jërëjëf dégg nga. <laughs> jërëjëf. asalaamaaleykum naa ba ñaari. Abidjan. kota na leen. ante. todi malu. Ah, dato ngeen doon tawale. doon doon tawale. yow mu doon di badilan, len. ni naa côté ndaa ko imuta ko te mbaadi len. re bi sunda ah kabulon kuno mbaka no kabulon kuno isunda mm. sungaro dun nyina marché kuno tiaje nyaadile ko fena mon sono yaaji fena mon sono sungaro kay jamo sawon sawon sawon sawon jamo sungaro kana fena ka sono ya bana sungaro stade dun fombe da ko kole ya muna muna muniti amna mune ko sa muna ka na fena da ko kole ya sungaro kuno ah, fɛn dɔ ko ɲiri diya ɲi dɔ bi jɔ ko ɔdɛnɛri ko dɔw k'u jɛ mɔli le fan kawo dɔw ko mɔli le fan kawo a pilasi fa ye min diya tɛ dɛ e y'a min diya la a b'a fila ye o i tɛ taa kana ye waa wata wotaba ñin kansaro ñin before sunga ñin kasan 40 dollars la 30 dollars bara sante 125 la 130 ñin kasa wala kilo sete wa fla ñaadi fete ba fen soro yi ram do go say wala wo mo kolya kula ko min take jam fo kolya ku do bi jam yan ko ake take jam ko kolya ko mo mo ka bandu mio ko nte danta no ñin to bara kolya ko mo mo ka bandu so senga kamin so na fatilo boy o mo ka bandu nte nte danta ñin bara nga dangin yo say ni ni ni ni ko mo soro min fo man sakunda ba kala munali masakunda Eh, mazakunda fana mimi marché kono yalo ni mimi marché kono mazakunda mazakunda waziri office mo kate yalo mimi ka passé marché ko mimi ka passé sate kɔnɔ o yalo hani mo ma diam kota o yalo mol meto ko diam lo kamin sero diam kilo mol meto fulale mazama kalam sa ma mene kala sabu tu ah, bala sa mo mo le balo be bata man sa bulo kono sa ka kuma fo man sa e mi an ko lata man sa be balo balonde bari fo mi fo balo balonde a très drôle ibe dami to yomude bu tan fulo ya do domo be tan fulo mo dronat yow waa baraka baax yaa ngi. asalaamaaleykum man Ismaël Ba. Ismaël Ba mbaa tey or waaw ñun ñun sant baay dañ dee or nag. ah poli dañ bëgg a lekk torop de moo dama laajte la soo. ñun Ba lañ sant dañ dee or. a ah, ok Ismaël Ba naka nga gisee marché bi si weeru koor bi. ah marché bi nañ si alhamdulilah si weeru koor bi ba léegi business bi bagage am na yu seer am na yu yomb marché bi moo mel noonu daanaka waaw weeru koor bi nag ñu ñaan nit ñi ñu mën a beesal affaire bi tuuti. waaye rawatina noonu suñu mbokki séeréer yi ñuy feetoo si si mburu bi fu mu dëkka ni dëkka bi problème bread mburu bi moo am waaw ñu ngi si affaire xeccante si mburu ñu dañoo ñaan bi ñu seetante ak uh, nit ñi ñu seet nit ñi bu ñu seet uh, uh, borom alal yu mel noonu ñu seet nit ñi askan bi moo gën a am important si nit ñi daal xam nga fu mu ni nii affaire mburu bi moo gën a garaaw si dëkk bi daanaka duma lay wax ni loolu warut am si weeru koor bi nii wa mung mo yo lolu lolu andi sumal sabite ya. da ngaja wala da ngajin jënd dama jënd kay dama am ay bagage yu ndaw yu ma wara jënd carton yoyu lo rek la ñew fi ma ngi joge be abuko waaw abuko la baye ko ci suba ci ni ma ñew ma ngi ñew shopping jënd ay bagage yu ndaw jënd ma nak lu melni malo wala sukuraay yoyu ay carton yu ndaw rek la soxla won lolu moma indi fi tay ok si lo jënd naka nga gisee ay prices ay tay ay si wéru koor ak ak ludul wéru koor bi naka prices non daanaka daal uh, amul different daanaka daal different bi amul lu fa nekkoon rek mo mo fa nekk ba léegi on soo am na yu wàcc am na yu yéeg xam na da nga so ko méngalee dafa mel ni rek benn bi la ba léegi waaw mooy loolu quoi. jërëjëf ah. on jaaraama. jantum jaaraama. jantum ko honno en nette ɗon. min ko adiyatu ba. adiyatu ba am adiyatu ba ɗon hoori eyyi eh, mi hoori kay ok ko ɗum won ɗon wadde kam marché ga on aru yeeyugol soodugol ka on jinda e tu woni ndaro non mi ara yeeyugol coñci e paɗe e sakuji ok ko paɗe e coñci e sakuji yeeyo toon da eyyi eh, ko ɗum mi yeyata o ok yi yeyirɗon marché on ɗo ni ni on ka suumaye ɗo e adi suumaye on a ah, ade suumaye o marché no ɓurori kono ka suumaye ɗo because yimɓe ben ko ñamete on woni sodude nini paɗe chonche sakuji wonno ka mayde sumaye fi juldere nden ɓurata marché kono min ara men udita min jooɗo yimɓe ɓen anda yimen ɗo après be bi be wawa arde ɓe sooda ok ko honno ɗumannirɗo yi'uɗon kadi piiji ɓayi lan andi ko rewɓe on defay sunna kadi eko wayi noon ɗi piiji kecci wa vegetables en tewu en guerto en konno yi'irɗon ɗum ɗon kadi adi suumaye on eka suumaye ɗo nini an hikka noon no ɓurode because last year hari uh, vegetables wono kakumba en e uh, um, sweet pepe en hari no séria kono nini ngal ɗo at least alhamdulillah nini no ɓurori nini fof dal no waɗi normal mm. ngal ɗo kayno ɓurori moƴƴano wa onon nga kadi ɗumamon on ko yoɓayno ɗon kon ara noon e ha joni ko gotum ka no ɓeydi luwasi on e taxi ji ɗin ko wayi noon fof no luwasi on ari no ɗumanni kono ɓe ɓeydi ngal ɗo landlord amen on ɓeyduno seeɗa ɓe ɓeydi ka yobugol komin wowi yobude ɗon ko ɗum noon ɓuuri tampinde yimɓe ɓe moƴƴa wono wonani ayɗi piji ɗi yetani ko occasionnali ɗum marsata wono ko so juldere no arde ma christmas ma oda issues kono si wona ɗum ɗon ko seeɗa seeɗa marsinirta so si tawi loisir no seri ɗum ɗon kadi ara probléme om ari ayo bay e taxe bay rent e rente ko ɗon ñamata ayo bay environmental issues everything ko do wonta so at least ɗum ɗon ɓurorno seeɗa wona ɗum ɗo addugol no ka port ayo bay e custom on ayo bay e port service on so is another issue on andi wi ay sa wi ɓe comme min ari ɗo janggo woni o oɗo lekke ke ɓuuri ko o e ko wayi noon on innay wona onon ko hella ka laamu ko ɗum maro ko yettoɗon lanɗo on e laamu ngon e affaire ɗi piriji ɓeydo jippo on ñande wo ñande ko honɗum maro ko yewton ɓen ɗon a ah, minen min ko minnata lanɗon ko ƴuttan men custom on ka port because andi ɓe jonna access gambians ɓe wawa wadde business so si a waɗa business ala huge capital at si don no seri a heɓay problem because obviously si an a ah, yoɓito ko seri si a ari fi bagage di mani a top up ko yoɓuɗa kon ka bagage yeeya because na losses an di fa alɗa so be duita ni men tax di ding e custom on ka pot no mo ya ya kadi ɓe waɗa organize pot on to to level ne si a bi bagas a wawa wadde yaltinde bagage ma tinna sometimes juldere nden hewtay hara container ma on ka pot aran ya dile aran pour yaltingol customers ɓe ma ben habima so so ɓe wawi moƴƴinde poɗɗon ha moƴƴa ina weedat poɗɗo waɗa conjusif yo wawi ƴettude bagage ma time mo fal o ɗum noon kadi ara no walli hara costome on kadi no ɗuyti ok hadiya to on jarama boy ok fawara jara Vamos, no construir

mengubahnya dengan Yuraba ya, mmoja Stana nga def? Jaama rek. Naka nga tudda? Siri laa tudda. yore sa pañe ñëw si marché bu gën a bisi si biir Gambia loo ñëwoon or dogu or bi waaw. Wow si seen duga no noonu se price prices yow si prices si marché bi. dama ñëwoon pour jënd gën waaye gën bi naa yombut daal xaw bila ci lifin bi la si jej bi la wala si marché bi la seere waaye dafa xaw a seer parce que gën bi daal njëgaam bi yombut daal loolu ci gis. si kaw gis lo ko mu like ñu ngi wax ne chicken moo gën a cher wala leen jën moo gën a cher. man si suma expérience bi foog naa jën bi moo gën a cher te si suma gis-gis yi daal foog naa chicken bi moo war moo war a cher daan jën comme jën bi daal fii lañ ko dee defaree waaye chicken bi dañ ko di export si expérience loolu daal foog naa ne kom luy xamante ne luy export la loolu dafa war a cher comme dañoo fay fa tax jën bi fii lañ koo jëlee waaye gën bi daal moo gën a cher chicken bi daal. wala ya. si price bu nonu loy muna am wax si réew mi comme que yow jeun bi fi la mo jógee chicken bi jógeewut wut fini te lolu si suñ bir dëkk bi lañ ko jeun bi gëna cher dan chicken bi loy muna wax si suñ luma ma am wax moy nit ñi dañ war a am yërmande wañi seen gën parce que fi dëkk mi doole la dañ war am yërmande si sen price seen gën dañ ko wara wañi government bi tamit dañ si wara set dara wañi sen price gën yi di jox ñu dé jaay tamit jaay kat ñu jox leen jéegi bu baax ndax ñu mën ko jaay ci marché ci price bu baax daal kon jërëjëf sister jërëjëf alaykum na toodi maɗum ɗum ta tomu fat la ti fat jane jane kulonko kodi wo sunninko e ndal mu sunna la ti ndol kaye ndol biri nga xane sun karonté ndol ka sunne sila kundankol walla bi ka sun wolo domoro doro farsa ne mu ke fi na marché na ja a ah, mara sai kono nata nan ndugala la pour mi yalon comme c'est sun terrain on c'est sun sungo tay no wala ni na dimba yalu han ata wala la ja yo kabin nyaada marse kono bi marse kono tiaje nyaade les ni sungaro kono ni sungaro tano ni nyaada marse kono ka nyaade le a ah, alhamdulillah da bar yalo mim problème to sunkaro na sita fir fengo daka ka fule e ka daka ka fule anu ngaje ko sunkaro de wala nyanta na fir fengo da nyanta talala wala to bari na gambia jami mu problème ot ni ni sunkaro sita firi fengol daka ka fule ye fengo min sam 5 dollars la ni wo sunkaro sita ka wo sam 10 dollars la mbanta ya sam 15 dollars la and wo yalo wo manyinya ngamera sunkaro nte la jero to de sunkaro fengol danyan nyanta talala wol bar mar sebe kole yar mbakele ha fente fo ye fengol dam hin kafu yo ti amere ni price da ka fo dum wo denni wafir lala mo fo do abdo mon sa kunna ti aje ti mo miro ante te den tangaji kon gambia non dammal be nyob batande kam bar malla man sade man sa kunda wom ni man sa kunda damma damma malla sa kan ñi ñam katu yalo ni julol fana ya, ya sa ñin jula do ya o ya da kafu ni ta fana bina wa fula foye daman din sotoje andu yalo wala katu na fi rol da ko kole katu ni ñin do ya san da ja wala bina wa fila fata fana ye daman din sotoje katu fen fen ni mom mo ilafta ye fen dun sotoje bitala min sambala ko ma foye dimba yali da ni ngal hade Yo, kuma kuma bela baraka. Baraka baraka Ah, baraka. Good afternoon. How are you? I'm fine. What's your name, please? My name is Mohammed. Mohammed, are you fasting today? Yeah, I do. I'm fasting. Uh, Mohammed, what are you doing at the market today? Today, I'm just selling on the customers. Yeah, like you know, we have sometimes we should we get more customers and sometimes we don't get more customers. But right now in this Ramadan, it's kind of cool a little bit. Yeah. Okay, Mohammed, how do you see the, the market during Ramadan? How do you see the reaction of the people? How is everything during Ramadan? Yeah, um, I don't see nothing. Only peacefully, and you know, like it's only peace that I see in Ramadan. Yeah, because that's how Muslim people have to act. When the time of Ramadan, we all have to be kindful and we just cool down. No more nothing. Yeah, that's all. Yeah, we had like some people complaining about the increasement of prices, uh, the business owners increasing their prices. What do you have to say to that? Um, what I have to say is is different. You know, like the people, even the people, like we have, we all are different. don't create us like the same, same. Like we different, and some people they just um, they can take their price high some people they can take their price low yeah that is is is is the the problem of the person that who bought he material and he know how to sell it but some people do that normally like some people sell normally without no more adjusting more yeah where do you think this problem of increasing your prices come from is it from the government or from the people themselves Ah, uh, no, for real, it's from the people, not the government. Yeah. from my own knowledge, it's for the people, not for the not for the government. Yeah. All right, from the people, not for the government. Thank you so much, Mohammed. Yeah, thanks a lot. Thanks. Assalamu alaikum. Yeah, we told me. Man, my to the Umi Mendi. Deguma? Umi Mendi. Umi Mendi. Umi Mendi, buy your or ngate. Man, banya or or nakai. Umi Mendi, naga gise marse bisi weru korbi. Ah, marse bi de numo ko gise si weru korbi de ana difficult si nyun badole. Marse bi nahari na torop pasi du ma wax ne xëj na weeri koor yi muslim yi christian yi bagages yi daf dee yomba waaye su ñëwee bee ñuy duga si si weeri koor yi muslim yi rek bagages yi yëpp dañ ko dee yokka te nit yi yëpp emuñ te marché bi da ngaa gis ne yow soo waxee ne da ngaa ñëw marché jigéen ñu bari si marché bi leen dee xeebante seen morom parce que di nga gis kii mun ndugg a pousse ba mu fees yow doole bi nga ñëw jëndal lu ndaw yaa ngi xool sa morom lu mu jëndal te ñit yi seen poos yi man lu ma am pour ñaan gaay su nekkee ne ñu dee isi bagage yi ñoo ko dee seeral ñu waxa ba yi ñu mun a wàññi bagaas yi su ko defee ñoo xam ne antaluñ loo xam ne ñu ngi ñu lu xam ne seen morom yi ñu ngi ko am te bëgguñ mënuñ koo am suñ wàññee bagage yi dangaa gis ne baadoole itam dinañ ko mun a jënda waaye léegi dangaa gis ne kaani sax suñ ko doon jaayee five dalasi dañ koo wàññi def ko ten dalasi loolu sonal na baadoole man loolu laa am pour wax leen su ko defee ñu wax a gaay ñu mën a wàññi bagage yi su ko defee baadoole itam mun a di jëndal luñ bugga parce weeri koor moom weer boo xam ne la loo bugg a lekka lu baax foog nga jënd ko nga lekka ko waaye ñun spécial yi jigéen ñi ñun dañ dee soona torop si marché bi parce que yow loo bugg a jënd lekka foog nga génne xaalis lu bari saami jën léegi 200 soo buggee lekka jën bu baax 200 ngay génne nga mun a lekka jën bu baax ndawal bi tam ñu ngi ko yokka benn kilo ñu ngi ko jaayee 250 te loolu tam dafa seer si ñun baa baadoole man loolu laa am pour ñu wax a gaay ñu wàññi price yi nuñ ko jaayee jërëjëf jërëjëf jërëjëf alaikum waaw salaamaaleykum waaleykum salaam no mbiiteɗa min mbiɗe seydina an ko marché sérékunda liggotoɗa marché sérékunda gonɗo ko hoɗum bonɗa e wadde ɗo jeeyata ko pisuji waxiji basin ngaji e pilluji bebileji fof mi jeeya ko ɗum ko jeeya toon hono don price moɗon onon price o joni kam korka fuɗɗi ko en mi ɗuɗani no feewi kilineɓe gara no feewi ma anda yimɓe ko ɗum ɗuɓe mais kam joni ɓe garani no feewi kono no jeyiranno ɗon price ji moɗon ɗo korka ka he korka ka en ko price moɗon ko goto nanda ko onon woodi ko ɓeyduɗon hen non non en waɗi ga komin gusti presque korka ali ke min jaltini hay e basin ngaji bowal to ko jaranno temedde ɗiɗi e capanɗe joyi min batti ɗum temedere ɗon ko gonga lamu gune ne ko hodum bawda hen wiide ko ma kamen na ko jida hen mu en ko ma price ji modon kamen dum control ndako dum tampi non man tampinon mon nako ɗum tampintamon hen den leedi a lamu go kam kambe budi andude ligguey mabbe ko mino ko ko de leedi e me kam mi yiyaɓe do ñande fof il paraît kam bal ligguey e mabɓe par mi yaba chaque fois ɓe jaaɓe garta machallah kam minen kam tampinana amen no namdo ta amen tan be ke ko poti da amen allah waɗa sahaji minen kam en ma toujours mi ngoni en règle jarama eh, jarang bandam ya, wala yaaba tuumi man safietu diallo safietu diallo pour nga dem ba or nga ah, maa ngi or bu baax a baax waaw sant suma borom naka naka or bi eh, si si si marché bi fii marché bi mu ngi neex sant yàlla ko maa ngi wér maa ngi am wér kay maa ngi sant yàlla bu baax a baax mu ngi neex bu baax a baax nduga naa suma nduga yëpp pare léegi xanaa tooga rek moo ma desee waaw ah, yow kon ko nduga moo la andi si marché bi teemo waaw nduga moo indi fii kay waaw suma soxla yi daal indi fii maa ngi dëkk bee kóolooli waaw so yo naka nga gisee jaay price pricey, price yi si marché bi si wéru ko bi ah price eh. ah bu wacha de dina bax way hanga munu mënu si dara way bu gune wacha tamit mom dina baax waaw way fum mu ne nii tamit sante yalla hanga adna bi num mu rek num nek rek non ngay eh. waaw so yo fa nga fa ne price ñi ñu dee yokk price la si jai katila yi la wala si government bi la be. bi ah mën na am si kat yi la duma mëna bi len jay yi moom muna bleng leen ko si jay yi la nekk di wax nga si jay yi man la de gis mom la de jenda wa fo mo muna wax si ñooñu rek wa su fege si jay yi la loo loo am pour wax gaay mbiri price bi. ngi di ñaan ñu gëna a ñu yëpp ay doomi adama ñu ñun yëpp ay doomi juliti lañ ñu yëpp ay ben lañ ñu gëna a bu baaxa ba lool la len di ñaan wa ok jere ah. ha wa ñoko bokaye eh, bay assalamu alaykum bo nakam. sant sama borom bu baax. tour bi. Ousmane Kan la tuddu Ousmane Kane ba tey or nga. waaw maa ngi woor. Ah, naka naka naka jaay bi si weeru ko bi naka marché bi tey. 25 bi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi sant yàlla ñu ngi jaay. jaay bi naka la nekk di demee si eh, si bi. waaw weeru bi koor bi moom jaay bi ci la dee gën a dox su fekkee nekkul weeru koor jaay bi ci weeru koor bi la dee gën a dox. waaw dañooy dégg ñeneen client la ñuy wax ne si weeru koor bi la si si la si la gars yi yéen soo leen xamee ne jënd bagage waaw loolu moom li koy waral mooy njaay yëpp la bépp njaay boo xam ne nit ñi daw nañ wutali ko rek njaay boobu force mu yokk parce que du doy léegi ñàkk gi muy ñàkk doy noonu nag mooy waral muy yokk ndànk-ndànk waaye bu passé week bii nii rek bagage bi yëpp dafay delluwaat normal waaye bagage boo xam ne nii client yi daw nañ wutali ko rek day yokk loolu ifin foo mën a dem si àdduna bi noonu la. waaw yow loo foog lu waral loolu price bi lu nga xam ne daf day yokk woon te team bi nga xam ne si weeru koor la time boobu lañ war a am yërmande si ñeneen ñi loo tax moo war loolu waaw xam nga maanaam grossiste yu ndaw yi moom nekkul ne ñoom ñoo yokk price price moom saa bu yokkoo rek grossiste bu mag bi moo koy yokk bu ko defee grossiste bu ndaw bi tam force mu yokk mu mun a am dara léegi nag bu defee grossiste bu mag bu ko yokkee léegi yow nooy def boo ñëwee da ngay yokk rek léegi nag grossiste yu mag yi ci boppam ñoom ñoo waroon téye bagage yi nga xam ne léegi ifin weeru koor la nekkul weeru koor ñu téere price bi fa mu toll noonu ñu emale ko fa bu ko defee yooyu boo jëndee na koy mën a jaayewaat comme ni nga ko jëndee waaye comme da ngay dem ñoom ñu yokkal la yooyu boo ñëwee foog nga yokk. waaw ñeneen dañoo wax ne si nguur bi la ñeneen dañoo si si yéen jaaykat yi la yow yow yow looloo foog si loolu noonu si kan la jógee. non nguur bi moom jàpp ma ne ñoo ko def maam ci ñi indi bagage yi ñoom ñoo dee yokk waaye nguur bi moom jàpp ma ne ñoom ñoo ko dee yokk waaw. Ah, ok jërëjëf ah. te donc. Zakaria. Zakaria. am hiɗon hoori. Eh, miɗo hoori. hande won ɗo wadde ka marché ga marché ɗo mi aray ɗo yeeygol yeeygol kon ɗum won ɗo yeeyude yeeya o goro ɗo bukkuji ɗo gam tabal ɗo e tamaro o gayni e tamaro o ok am ko honno yeyirɗon marché on adi suumaye on e ka suumaye ɗo marsu ma on immede marsu ma on piiji ɓeydi ɗin piiji ɗoyta ɗin ko honno yiyirɗon ɗum ɗon ɗo nomi yiiri ni uh, way ni fewndo ɗo marché on ɓe yimɓe ɓen no ɓeydi awa wano piriji ɗin ɗum ɗon mi faama moƴƴa miɗo jooɗi ɗo mi wawa faamude moƴƴa uh, kono noon haray toujours tamjini haray no yarata ni haray no moƴƴiri ni uh, wa marsunman mon on ka tamaro e ka goro no ɓeydi kano ɗoyti ɓay o yiyay wa gambiya ɗo kaka suumaye si a yiyay o tamaro kala ko woni e ka woni o goro ɗo noon kadi ko honno marsumanji mum ɗin kañum ɗiɗi marsu man on fewdo ɗo no ɗoyti ana tamaro on joni fo yeeyay ka fo yeeyi o haray ala soodo mi soodoɓe aray ɗuɗa dal Eh, aray ko wana noon goro fof mum fewndo ɗo ni andi ko ñaameteeji ɗin ɓurata marsude fewndo ɗo tam waɗi min waɗi tamaw no waywa piriji ɗin on maaki on anda hakkunde ɓeydagol prix on e ɗoytagol onon no waywa marchandise mo marɗon on on ɗon prix on ɓeydaki ma o ɗoytaki no woni voilà ɗum ɗon ko wona mi yewtirma nane noon mi ɓay on tigi ala e haylade awa ala e sodude ko ɗum waɗi mi wawa faamude ko honno woniri hmm, sino ɗoyti walla sino ɓeydi ono on ɓeyda kaka ɗon ko ɗon accuɗon ha min mi ɓeyda joni wona goro on fewnɗo no ɗoyti no ɗoyti dal seeɗa seeɗa ko honɗum marɗon ko yettoɗo lanɗo on e laamu ngun e affaire par ce que buy inni ka suumaye ɗo hara ittugol dépense on no ɗuuɗi ɗulle marche ma on ɗuuɗa koɓe yoɓata kon kadi prix ji ɗin ɓeydete onon kon ɗum marɗon ko yettoɗo lanɗo on e laamu ngun ko yaari e ɗum ɗon ehe ɗo ɗoy min komi wawi yewtude ɗo o hana ɓe daranan no gasta yarude noon hara en heɓa jaam e kisie eyyi eh, jama on heɓa jam ɗum ko ɗum ɗon mi wawi yewtude woni prix ji ɗin no wawa ɗoytade e taxi ji ɗin no woni e yarude noon haray ɗoyte tawi kadi no wawata gasirde yo dal eyyi eh, ko noon noon awa on jarama albarka jarama baba tana ala kono no makete ɗon ko ibrahima diallo ibrahima diallo am ɗon hoori eyi eh, eh, ko landete ko si on tigino no selli meɗen hoori am ko honno kon ɗum arɗo seni ɗo waɗugol ka nder marché ga o yeeyay woni on aru sodugol ka on jooɗi tun ɗon darde feƴƴayɓe ah, meɗen darora e feƴƴoɓe kono min ko office mi jogi ko bureau d' échange mi jogi ɗo am ko honno business o yi'irɗon mo adi suumaye on e ka suumaye ɗo Eh, adda suuma on seeɗa hari business on no maayi kono noon eɗe balɗe ɗo ka sabboto suumaye ndu maayata ɗo haa fewndo ka fewndi ɗo no fuɗɗi yahude seeɗa no fuɗɗi ɓeydade eyi ɓaawo ɗo on hari no satti seeɗa kono noon affaire on ke immitade seeɗa seeɗa ah, ok no wawi wa ila suumaye on ari affaire on immike moƴƴa eyi transfert ji ɗin hino ɓeydade ɓay haray no woodi yimɓe wonɓe ka leyɗe janane heɓe jonnande yimɓe maɓɓe ɓen ga mbuudi no wawi ɓeydo seeɗa seeɗa am ko honɗum marɗon ko yeetoɗon par ce que min landike buyɓe inni prix ji ɗin no satti wa onon ittay ɓe dépense ka cuuɗi woɓɓe no wiwde business on ala yawde woɓɓe no wiwde ko ɓeydakon no ɗuuɗi ko honɗum marɗon ko mako ngel ay probléme business ɗum naaɗo woni ko adna allah on fo si sattede ari ko fo sattanta kono mo jogaaki igam o waata heɓude hoolaare e muɗum ñaameteeji woni e arde ɗo ɗin fof ko leyɗe janani woni e yiwde ara ɗo ko wonɗen e towde ka ndeer leydi meeɗen koye yonata ko naftoren noon ko peepiiji ɗin satta seeɗa ko goonga harayde dépense on no satti kono noon ko feere alaa ko beeyaara noon ko adna o woni e yaarde noon ɓay en tawaama ɗo zamanu saaku maaro temet tati capa min tawaama capan tati e tati ari hande ko wuluure temeɗɗo joyi e capanɗe joyi e anndi koka woni e iwde ara ɗon woni e sattude ɗa kamen ɗo woni ko sattede nden ko e nder adna allah on fof ɗum ɗo woni dépense on no sattude kono noon na e ɓeeɗo woni na e laamu woni na e ɗuma ko e adna on ko woni yaarude noon ko évolution on woni e waɗde ɗum kon ɗum marɗon ko yeetoɗon lanɗo on e laamu ngun ko yaarino wallitorta en e ɗi prix ji ɗi régula Eh, ɗum ɗon ko taxe ji ɗin si ɓe ɓoyitali taxi ji ɗin ka por ji e taxe ji ɗi ɓe woni e fawde hoore yimɓe ɓen prix ji ɗin uytatako taxe si ɓe uyti taxi port ɓe uyti frais transport ɓe uyti carburant ko ɗum wawata uytude taxe ji ɗin hoore puisque kala ko fawa e hoore kala ko laamu ngun fawi taxe ko e hoore population on arata jama on ko jama on tampata hina businessman ɓe ɓen tampatana kamɓe laamu ngun ko jama tokoyɓe leyleyɓe ɓen ko ɓen tampata puisque kala ko fawɗa e hoore juula ko e hoore jama artata ko ɗon ɓe foti cekkude ɓe tarta hoore maɓɓe e gon sengo ɗon min ka hakkille an eyi eh. on jarama awa allah jarama on jarama aleykum waaleykum salam ya nakanatuɗa on magi tuɗa majula yo tesi orɓe ni ñu ngi gis ne yaa ngay jaay sukur Yang si marché bi yo lo ñu mëna wax dem si business bu dem business bi dem ngi ni ñu ngi try nanka nanka bagage yee sé rek wa ñu ngi try nanka nanka waaw digal a ah, dis nañ ne tam price yi dañ ko dee mën a wàññi or wala tam si or bi tam ñu yokk ko wala yow loo si mën a wax daal loo si ci waaw bagage yi fu mu nekk ni bi yoon ñu ngi koo wàññi parce que last time ñu ngi ko soit suku dañ ko daan jënd 1005 waaye fan yi ñu ngi jëndee thousand three fifty. noo gisee customer ñuy ñëw jënd si ngi naa am client wala ndax ñu ngi taxawaa moom ñu ngi génn si ñu ngi génn si ñu ngi jënd si naaj bu tànga bi ban difficultés nga si dee am yow tamit toog toogaay bu fii nii ba ngoon ngay jaay ak or bi nii loo si gis yow. mooy coono bi nag moo métti nag toogaay bi moo moo métti nag. depuis ci suba yaa ngi toog ba ngoon dafa metti nag waaye nag moo gën toogaay ci kër bi nag. jërëjëf. waaw jërëjëf. asalaamaaleykum naka nga def. jàmm rek. tur bi. Eh, maa ngi tudd Aliou Diaw. Aliou Diaw Aliou Diaw maa nga tey. waaw maa ngi or. wéru koor bi bu mu startee depuis démb ak tey naka nga gisee marché bi tey. Ah, marché bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax di jiitli si yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh, di nuyu ñëpp nag réew mi si kaw ba si suuf yëpp di ñaanal ñëpp ramadaanu jàmm yàlla may ñu nuñ ko tàmbalee nii ñu àggalee ko noonu si bisimilah rahmaani rahim ñu jeexale ko si alhamdulilah ñaan yàlla mu jéggal ñu rëcc rëcc yi te mu nangul ñu li ñu jéem si weer bi yëpp si lu baax. gannaaw loolu eh, price yi si marché bi man nag jaaykat laa jaaykati bitik eh, bu ma commencé jaay ak léegi ëpp na 25 on yaakaar warna war wax si marché bi euh e, atum ren bi mom limu muna wax mom euh moom lu constaté si ñatti wër ci gannaaw yaakaar wala ñaari wër price yépp yëpp ngi normal si marché bi price malu bi waccana diwlin bi waccana sukur bi waccana na bi ak soble bi price yépp waccana nit ñi nag ñu ngi jambar lu bare bare waya yaakaar naa dañu sante yalla euh su fekkene ne price yépp waccana bet tay amna ño xamantene dañu wax ne price waccul man loolu dina ma jaaxal man tamit family man laa maa ngi amee njaboot eh, maa ngi amee waaye am naa njaboot kon war naa mun a wax si marché bi naka la nekk di demee am na yoo xam ne yooyu pour mu yomb eh, du yomb muy lu mel ni comme ay jën ak yàpp ñun ñëpp xam nañ yooyu fuñ ko dee jëlee géej gi mu ngi fii waaye ñu bari ñemewuñ fa dem man maa ngi nii ñemewu ma fa jege naa ko lool waaye du ma fa dem nappi. kon loolu moom jaaykat mënut a wax dara si loolu waaye loolu taxul nit mu ne dund bi dafa seer dund bi mu ngi yomb ñu ngi sant borom réew mi bu baax a baax a baax woon ko ne dund bi mu ngi yomb eh, lépp loo xam ne daal waaye mun na ko togg nga lekk ganaar yomb na soo su fekkente ne ganaar yomb na ceeb ak diwlin yomb luñ si war a tege rek mooy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ñi ñaan yàlla lii yàlla fi yàgg waaw. maalo bi te tamit rafet na tamit teg si maalo yi am si marché bi maalo yu rafet a rafet yoo xamante ne mus naa wax ne bu fekkente ne maalo dafa daan am tam yu rafet am musta am yoo xamante ne toll na comme maalo yi ñu amee jamono yi nii maalo yu rafet a rafet waaw foo ko àpp rek waaw passé na ko kon loolu yëpp ay xiiwal la yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu waa di ñaan yàlla daal lii moom yàlla na fi yàgga li des mooy li ñuy liggéey rek ku fi bugg a dundee la yéene nii rek da war a liggéey rek waaw lu waaye liggéey rek war nga ko eh, dina baax daal loolu daal lañu wax xale yi nañ liggéey te nit ñi ñu bàyyi ñu wàññi wax bi waaw ñu liggéey réew mi loolu rek la laaj waa ji mu ngi koy tisool yi nañ liggéey suñ liggéeyee ñu bàyyi wax bi te ñu bàyyi tamit mbuuru bi tamit mun naa si wax lu tuuti rek xam nga mburu bi tamit xam nga yaakaar naa su fekkente ne gaay demo nañ direct ci ñi nga xamante jaay mburu bi comme man borom bitik la fan yeb man ma lay dem jëndal suma bopam mburu yoy yeb ay choono la suñu baye ñooñu ñu continuer seen liggéey ñom suñu amé ñeneen ñu baye ñooñu dem si fil bi ñooñu tam ñu dem jaay su ko defee wër bi su passé fekk demand bi mu ko tuuti su ko fe da nga gis né ñom luñu bëgg a def rek su boobaa ñu def ko waye jamono yi ni xam nga nit ñi dañ jëssona na trop xam nga té ñun fuñu nekk sorewul fuur yi mën nga dem si fuur bi nga taxaw lu yàgg bala ngay jot mburu xam nga soo loolu daal yaakaar naa ñoom suñu waxe ak li nga xamante ne ñooy jaay mbuuru bi te radio station itam su ñooy dem nañuy dem di laajte right people bi dañ jee dem si ñoo xamante ne si ruq lañ nekk nga xam ne duñu mën a wax dara xam nga wala lu ñuy wax du méngoo ak li nga xamante ne mooy dem si marché bi xam nga kon di laajte koo xamante ne lim koy laaj xam na si dara am na si expérience war nga ko laaj ñaata yaa ngi jaay mu xam marché tuuti. su ko defee mu soko mëna wax man dé wax dëgg yalla ma ngi jaay naa lu ñaar fukki at ak juroom ma ngi jaay te amna njabot sila sampa suma kër kon ma ngi sante yalla bu baaxa baaxa baax té te marché bi tamit dundu bi sha allah waaw fu kani nekk nii kenn du wax né amna na lu seer te loo amul itam so démé ci sa mbokk na la ko jox lu gëna bari waaw réew mi mom xam nañ ku fi taw ci yoon bo taw fi <laughs> ling fi gis ma sha allah auto sér rek nga fi gis muy rombo kon fi ku nekk am nga mbokk bo loxom jot na gannaawam donte yow sa loxo jotu sa ganaw sutura mu ngi si rew mi dal waaw sutura mu ngi si rew mi ñu ngi sant yalla baax di ñaanal president bi waaw fi mom jafe-jafe yi mom foog li nekk ci transport bi mo gëna bari fu nekk because man wa Madiana la fani amuñu yoon xam nga wala suñu yoon bi baaxul nawet dañ jé sonna ci mbiru moto te fu nekk ni tamit nekkuñ si nawet sax waaye yoon yooyu ñu ngi nekk si coono yu métti métti métti because da ngay dem tout awas yenn saa yaa ngi taxaw si garage bi di xaar oto pour nga dem doo mën a dem coono yooyu daal foog naa ñun loolu lañ mën a jàmbat waaye lu passé loolu affaire dund jàmbatuñ si dara waaw transport bi rek waaw foo bëgg a dem rek fu mu nekk nii dafa métti waaw dafa métti dem bi moo wax dëgg la amul soo bëggee fii dem fii Tabokoto dafa métti soo bëggee dem fii Sukuta fii sax pour nga dem foofu noonu dafa métti xam nañ waa Sukuta dañ dee jag si yoon bi fii every day kon yoon moo amul na ñaanal président bi moom la eh, fann bobu tam xam nga mu match nga xam dina fa def lo xamantene dem ak ñew bi dina yomb wa gannaaw lolu ñu ngi sant yàlla bu baax. xaaral ma bàyyi nii wax bi leer wa rahmatulah jere jere jere assalamu alaykum tour bi. Ah, man Sellou Diallo. di Sellou Diallo poli ma yow or nga yow. ma ngi or bu baax. ya ngi or. wa Mohamed yow gisee marché bi ci wéru koor bi. ah alhamdullilah sant yalla comme nit yëpp ñu ngi ci jaama ñu ngi jaay ñu ngi jar wa alhamdullilah sant yalla bu baax. Ah, jaay bi naka la mel si weeru koor bi ak ak ak ah, su dul weeru koor bi naka la dee mel. non after weeru koor bi naa jaay bi neexut noonu waaye starting bi nii mu ngi ne xaw ma naa ndax dafa continuer wala du dee continuer. mbaa yéen tamit doo leen dee seetlu bagage yi si weeru koor bi. non xam nga ñun duñ dee indi soo ñu dee is bagage ñoo ñoo xam naka lañ nekk di isee bagage yi ñu ngi moom dañ dee dem rek jël bagage ñëw jaay after ñu delloo si seen bagage yi. waaw mbaa doon am coono comme si jaay bagage wala si nit ñi nga ni su ooree moom kay mooy loolu daal naka nga dee dile ak nit ah, coono bi kay moom ba force moo am jaay kay moom neexut jaay neexut waaw jaay kay moom neexut. ah ok jërëjëf ah. salaamaaleykum to dimaɗum nte mariama lam sidiɓe mariama sidiɓe sidiɓe ah. ko noon ko ɗon tilibonkol tilibonkolamunte ha koɗo i sunta ko ndoro ka suntan to lakgo kay mbiɗen kargo tartamiraɓe en sun téléphone tilo kandirin bake ñina sunkaro ti a ñadine ñina sunkaro alhamdulillah na tentu bakele kandu marchandise o ida fi siyarene anin serum manga kirinte te contre ka firi fami wafi wolon sukurote sainten sukuro ada jital dom domandin doron wala fi siyata bawo momo ba fi fi la ila dimbayalla ñaata ta ha yo wafiro dunga ni sandiro a kenya nyari ya sungaro kona ni sungaro itanola yaron sa ni nan kuwol space bifisi fisiyare na hani fuwaro fisi nyawo nyamo mo sukuru ka sanne buto ya samba ni nan sukuru man samba ka ka san nyamin no ha yala fana ka sore ka mulje sade ko do wa fala ko ni sunkaro sira wa firla le ka baga sol dajo yani baka no dum on beti ya do wa fala wa firla do wa fala ko muka dajo yana ba nyama le muka san dame wala ka problem so kuma kan wete mon soro ka foro ante o kuma kan on sa dol sopon no banta dol sopon no la bi ko on to ka wa firo min ka wala sukuroti sukuro sa enta wuri kirin batal lol lullo sa an ka poto ka dar si selet yala ofisiater ga wa fi wala nyam ha ah okay abaraka ba ga abaraka abaraka ba maricha Marie Thiam mbaa or nga tey. waaw waaw or naa de. ah weeru koor bu mu starté te dema da nga ñëwoon marché. déedéet du ñëw marché su goro yee ñëw marché. waa tey boo ñëwoon marché na ko gisee. xanaa naqari. loolu naqari loo. xanaa yëfi seer. yëfi seer. bagage yi seer na. waaw bagage yi seer nañ si loolu. yoon wi xat na bagage yi seer na. trafic bi xat na bagage yi seer na foo jaar mënuloo koo am. da booraanu rek. mang ngi leen di ñaanal nak yeen yalla na leen def mak yalla na seen wërsëg bari wéru koor bi féké nañ ko yan nañ ko féké déwén ci barké yonent bi sallallahu alaihi wasallam la yal lenen wow ok so very ah, price bi num séré ni yo si kan nga ko fogle si si si ñooñu la ñooñu la wara si si kat yi la wala si nguur bi la ah xana nguur gi japp lañu nguur gi war nañ ñoo jàppale war nañoo ebal ay nit ñuy laajte bagaas yi naka la demee ñoom ñu mën a xam waaye nguur gi buñ toogee rek laajte wuñu gëstu wuñu nit ñi lu leen neex rek la ñuy def. waaw jërëjëf yaa waaw kay jërëjëf. jërëjëf ah. asalaamaaleykum bro naka nga tudd. man ñu ngi may wax Boy Djiné waaye Mouhamed laa tudd Boy Djiné borom Serekunda. Boy Djiné lu tax ñu lay ooy Boy Djiné. waaw lu tax ñu may wooy boo Djiné parce que damay jaay loo xam ne day yomb ci marché bi jaay loo xam ne gilaay dañ koy soxla éviter may wàññi samay bagage muy tabaske korité moment bu ñëw damay wàññi bagage yi mun a jëflante client yi. ah Boy Djiné mbaa tey or nga. waa tey or naa. ok naka jaay bi si si si marché bi si weeru koor bi. waa jaay bi ba weeru koor bi desee 5 days xawoon naa métti lool client yi ñëwoon nañ macha allah waa 10 moom client ñu ngi xaw a wàññeeku ñu ngi wàññeeku baax a baax baax. lo lo lo loo foog mo moo war loolu xanaa price bi la wala lu lu tax client ñuy daw. non du price sax xam comme gaay dañ téla a jënd nag before because légui gaay dañ dé téla a jënd gars setul before balaa gaay di ñëw ci li fi ko préparation weeru ko dafa xawa metti métti famille bi jëndal sa goro jëndal xali ci kër bi loolu moy problème bi lay ah yow wax nga né nga né da nga né wañu price bi comme su weeru ko ci fee fee su ñëw nii ah wante client ñu ngi complexe bi de client ñeneen dañu wax né comme weeru ko su ñëw ñëw ci la jaakati di yokk seen price yi loolu waaw lo am pour wasi loolu waaw comme li ma client yooyu maanaam client yooyu lu ne ne wanteer rek Serekunda moo gën a yomb wanteer yi because of marché bëri nañ waaye Serekunda lañ si tam muy marché bi nga xam ne mooy marché wanteer moo dañuy jël ñun bagage yi nga xam ne moom la ñuy jaay def ko promotion def ko small price ñu wàññi ko pour ñëpp mun a parce que doole amul. waaw boo jëlee ok balaa ñu dem yow loo am pour wax ah, waa Gambie ah, mbiri weer koor bi balaa ngay dem. waaw mbir weeru koor bi li may wax waa Gambia mooy nañuy baalalante tey jégalante te ñuy julli julli salaatul xam si ku ci mën a ñaan nga ñaanal sa mbokk yoo amee ndogu sa morom amul ndogu ekkati nga ndogu nga jox ko bu dee tàndarma sax nga may ko di ñaanal Gambia jàmm àdduna wërngël képp jàmm yéen yàlla defal jàmm yàlla defal ñu tawfee teranga yéen ñi nga xam ne yéen ci rajo bi TV bi yàlla defal leen balaa déwén yàlla ngeen am lu kawe seen njot incha allah rabbi yàlla yóbbu leen ci a kawe ñu ñëpp ci kattan yàlla suñu borom ci barke weeru ramadan bi mubaraka bi ñu jërëjëf waay ah. salaamaaleykum boos na nga tudd. maa ngi tudd Elimane Ndong. Elimane Ndong mbaa tey or nga. maa or démb laa commencé waaw. Elimane naka nga gisee or bi si marché bi. macha allah nit yaa ngi or bu baax. alhamdulilah pare changes mu ngi tam. waaw weeru koor moom dëgg dëgg Gambien yi dañ dee góorgóorlu si wàllum diine bi da gis changes bu bari waaw ñu bari ñu ngi góorgóorlu laa si wàllum diine bi alhamdulilah waaw. waaw soo naka jaay bi si weeru koor bi. a weeri moom ak lu nekkul weeri koor dafa utee c'est différent cause jaayi weeri koor moo ëpp wërsëg waaw parce loolu la yonent bi salaa salaam wax mu ne weeri wërsëg la waaw so it's different man lu ma dee jaay su nekkutee weeri koor ay thousand dollars yi wala less than that waaye su weeri koor ñëwee ma dee jaay ay two thousand ba three thousand waaw so it's different weeri wërsëg la lu yonent wax loolu moo am moo dee gën a bari daal business bi moo dee gën a dox weeri yo wax nga wéri wur sagam nga ñeneen ni comme si wéri koor bi si lañ dégg na yoko seen price dañ dañ dégg ñu bari ñu ngi wax loolu non yo lo am pour wasi loolu non loolu mom gañ wéri yermandé la waaw ñeneen dañ lay use wéri koor as opportunity pour pour def ci business waaw way wéri wéri yermandé la ñun ñëpp dañ wara dimbalé wante wañu bagage yi yërem juliti amna ño xamné amu mënu ño afford pour jëna yena bagage yi ay saku malo ay sukuri ay diwliñ you know ay liñong so yëpp dañ ko wara reduce so ñaaka yërmande la rek lool la gis juliti suñ doon yërmante wéri koor dañoo wàññi suñ bagage waaw nekut weer pour pour sax waaw pour profito pour business waaye dañ war a yërmante ñu wañi bagage yi daal dëgg dëgg loolu laa ko gisé ok jërëjëf ma ah. masalla masalla. alaykum bi. Abdullah Ñang. abdullah Ñang maa yow ter oo nga. Abdullah nyang, ngi oor mom alhamdullilah abdullah Ñang naka business bi ak oo bi. wa sante yalla rek ñu ngi manage nanka nanka ñu ngi manage rek nanka nanka abdoulaye naka nga gisee marché marché bi naka la naka naka la dee nekkee si si weeru koor bi ak lu dul weeru koor bi naka la dee nekkee différence bi naka la non différence bi moo sofit nag uh, marché weeru koor mom suba la de gina do waye ngont yi xam nga ñu bari lañ dee soona nekk seen kër yi waaw lool moy nekk difference bi dal ak ak ak ak lu dul weeru koor ah ablaye xam nga yeen jaay kat yi som tay da ngay gis ni seen client yi tamit dañoo nekk di wax ni ñu ne say time weeru koor si ngeen di yokk price yi yo lo am pour wasi lool non man goma lool nak definitely non man goma lool Uh, kon man lima maa jaay man mom no fi mom du ñoo yokk dara time weeri ko ana mun na am nga ne waaye maaloo mala diwlin yoy waaw comme dugub yi normal price la rek lu fi nekkoon mom la ñoo jaay waaw. so yoko price bi yo fo fo fan la fo ci léegi si yéen la wala si nguur bi la. No, xam nga man pour man dal nguur gi ñoo jël rest c'est seen responsibility comme like control, understand pour man dal xam nga so contrôle rek lu nek daf day mëna dem rong dal pour man dal nguur gi ño wara contrôle price be gëy ñun xam nga ni soko baye mu free lu ko neex rek la mo def wa man lool la feel yi ok abla jërëjëf ha ah. thank you very much asalaamaaleykum bro na nga ma ngi si bu ba naka nga tudda maam alaaji siise alaaji yaangi or wala wa may or gis nañ ne yaa ngay jaay i different types of beans ak i dahar, ak jinjar ndax lii mu ngay jar ci market bi wala jarul non market bi mom ndànk-ndànk rek business bi mom xam nga moy loolu Gambia la gaaw noonu ndànk-ndànk rek lay jaay ni ñu ko jëflo si or bi wala jëflo wuñ ko si or wa ñu ngay jëfandikoo dugub bi ak ñebbe bi ni ak dege bi tuti-tuti, am nga ak gari yoy non ak mbooxa bi dugalaay yëpp nit ñu ngi ko jëfandikoo tuuti tuuti rek. yo ñaata yees yaa ngi jaay si marché bi fii nii. man three years maa ngi koy jaay fii. si seen price yi da nga dee gis time mu am mu yokku wala time mu am mu wàññeeku wala yow si gis. waaw price bi moom some sometimes am na yoo xam daf dee yokka sometimes daf dee yomba. comme dugub bi nii bu ñoree ees daf dee yomba waaye su demee ba xamante ne nit yi ñu ngi koy jënd depp ko daf dee seer. kon jërëjëf Alaaji. ok jërëjëf. salaamaaleykum booy tur bi. waaw man Moussa. Moussa naka. Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye mbaa yoo ngi wor ni. <laughs> ko dee Moussa Ndiaye naka jaay bi ah, ak ak jënd bi si weeru koor bi nii. waaw jaay moom nga jaay moom ngi dox bu baax a baax moom waaw. su loo jaay moom day dox moom. Moussa mbaa yéen doo leen di yokk price bi ko dañ gi dégg bari ñu ngi wax si weeru koor si ngeen a yokk price yi loo am pour ko jëndee ñoo ko dee ñoo ko baax a baax xam nga ñun tamit buñ ko jëndee bu box gaa yi yokkee fañ ko jëndee ñun ñun bu ñëwee tamit dañ ko yokku parce que képp kii business bëgg nga bëgg loo daanoon da ngay bëgg waaw loolu loolu laa amoon loolu laa amoon pour wax parce que ñun dañuy jaay te tamit dañu bëgg dara te it ñun du doomi réew mi leen waaw. Ah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. What's your name? Na my name Umu Umu Bangura. You dey from fast? Yeah, I dey from fast. I see the Ramadan. Well, the Ramadan tell God thank you because we just start. So we dey pray. I will begin and sow well body, make we end and back with well body and long life. I see the market during this Ramadan. Uh, well, the market uh, right now, the market less busy. But in the morning, it can busy because me also they work, na Sophia they work. Uh, we can bring supply na the market for help uh, people them so they go able get we product because during the Ramadan we minimize uh, the price of we products them so we can kind of market for can supply. So the morning time the market can tight, but right now the market less busy because boku people they don't go now for go cook uh, some people then anyway, then wait even time before they come for come bye bye. Okay, so what are the message we get for the government or the president for this year Ramadan? Uh, well, the message what I get now, for make it try for help the woman then within the market during the month of the Ramadan, because during the month of the Ramadan then kintaya waking kind of morning as una there woman they no more they see don't they disturb them with the push push man there una come on the road una come on the road so during the first month it can hard it can see say can at the market na fetch no more they see people then all on because space no day so in the month of the Ramadan the government for try for help the woman they all inside the market okay okay thank you yeah thank you barigol kono alaje ñamen ten ko nga fala ñamen mo ser ko na mor siro kono andum kabira alaje ñamen dunda la nga mol ñinin ka janinto ba fala la ketete na ketete na fo nga mo yal tulo le hadama dunga fo mole mole fo mole presul ñing mi adna kala fa to le mune jeje sun ko kono ba ñaade le beela beela miral ko mo fo mole ba wala ñamen ten sun ko kono aketen aketen mor siro kono sa ñina gambela sun ko ñina tele fulori ala ñina ja ketete ne bi ah, gambela telen steve na rajana pour ka tan dala mo ba kerin sare kono sare kono ko le mune je ah, presul la fa ni mun kuma kono soro ka fo man sakundale ala albe mo le ba ke ba fala le ko ala baraka ala baraka baraka bake mbal tintula mbal mbal jeyila minala ala kote ke jang sila kote mba ala baraka bake Gambian Talents TV Ibrahima Jamba ñoo leen fi nekkaloon Gambian Talents TV ñu ngi ñëwoon yëngu-yëngu si marché bi ak loo xam ne ne dina ka jaay bi lu mu mel si biir marché bi dem nañ laajte nañ gis nañ ñoo xam ne ne ñu ngi jaay di ñu waxal seen price dañ ko yokka si or bi nii tey lamin balde musidɓe am fulɓe musidɓe am julɓe ko ni mi haaliranno on hande me wonanno on sérékunda marché ko ɗo me yalti min jindi min yewtidi e yeeyoɓe min yewtidi e sodoɓe min yewtidi ɓe arugol tuyiya ko woni kon ka marché woɓɓe wi no séri woɓɓe wi séra wona minen haalide ko kamɓe haali jokke men e gtv daron ko min aissatou dialo on jarama